internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ñëw kër ki nga xam ne moom mooy Ngoné Ndiaye Géwël muy maye doomam muy Ngoné Ngoné maa ngi lay nuyu ginnaaw bi ma la waxee heure ménage. merci maa ngi aawa nga wala ñaareel ñetteel nga wala ñeenteel. aaw aaw madame nga. Bey. d'accord alors tey ban témoignage ngay def ci sa yaay muy Ngoné Ndiaye Géwal mu nekk artiste boo xam ne Sénégal yëpp xàmmee nañ ko ràññee nañ ko mu defal la anytime boo xam ne Sénégal yëpp a koy coow tey nekk bis xew bi lan nga ñuy waxal lan nga ñuy defal comme témoignage si moom. ah jërëjëf bàjjen bu baax rek ñu ñëw sax bàyyam parce que suñu yaay la suñu yaay la parce taxawoon nañu côté bu nekk taxawoon nañu ci côté bàyyi taxaw nañu ci côté yaay aussi lu def rek ñu di ko sant di ko gërëm ndax lii dafa rëy ku ci nekk yaa ñaan nga yàlla bés bi mu mel nii te moom nag bés bi taxaw na ci def na ci lu mu am ak lu mu amul yëpp waaw ñu ngi koy ñaanal daal di ko sant di ko ñaanal gudd fan dafa mel ni dafa am complicité boo xam ne gis nañ ko sa diggante ak moom euh, bi nga wàccee ci oto bi bi nga ñëwee ci bâche bi yëpp yaa ngi waxam teg moom ci ay bët dafa am complicité bu nekk sa diggante ak sa bàjjan muy Ngoné Ndiaye ci dëgg la comme li ma la waxee euh, considéré ma yaay la yaay la pare nëbbuñu daram day waxtaan ak ñun amuñu nëbboo ci dara waaw lu ñu bëgg suba ba ngoon mu ngi ciy taxaw lu ñu joxeñ mu dagg ko waaw mën naa ne daal yaay bu gën la daal waaw ndax manqué dara nii sam papa fii te taxawoon nañu ci côté boobu jooy ñu dara manqué wuñu dara. sa bàjjen nekk artiste bu siiw lool ci ci réew bu Sénégal euh, tey ngeen di dund ak moom mu nekk artiste est-ce que yomb na tey ngeen dund ak seen bàjjen mu nekk artiste boo xam ne siiw na ci réew bu Sénégal ñëpp a ngi koy jooka. si yomb na kay ci artiste bi dund ko simple comme ni ngeen ko gisee nii rek noonu la mel amul façon waaw. méttul dund ak moom ah. waaw ak ah, moom moom daa oyof. Uh-huh. waaw sa bàjjen dafa bëri xadaar. non loolu peut day bañ ku ko yeb rek mais xol bi moom dara nekk ci franchement. Uh-huh. nit ku baax la uh-huh. boo ko jegee na nga koy xam. d'accord mm. eh, gaa yi nee nañ moo moo tànnal jëkkër am na. tànnalu moom mm. ah, su ma tànnaloon tamit damay nangu mais kii moom maag tànnal sama bopp. dëggal ko sa bopp mhm. d'accord lan nga ñuy wax tey ci sa borom kër bi nga xam ne tey dégg nga alxayr yi mu nekk sa kilifa ni ki bi 17 heures jotee waaw moom di ku baax la parce que jàppale na ma moom tamit ci côté yëpp ndax na manqué wu ma dara waaw taxaw na ma taxawaay papa waaw sama conseil tamit waaw nga ko nag trop sax ba ko de kañ lay moom moom guddi après ah bon waaw après ci lay ñëw mais mbaa du la sàcc parce que Sadio Mané keroog dafa sàcc jabaram mbaa du la sàcc ah peut-être am bañu ma ko de. ah bon d'accord euh, gis nañu benn tristesse boo xam ne nemmeeku nañ ko sa kanam sànq yaa ngi koy wax euh, nga ni sa papa nekk fi euh, te tey peut-être ñàkkul foo xamante ni santé nga ko fa quand même alors tey nooy dundee tey ñàkk papa. waaw mét métti na métti na mais mais comme ni ma la ko waxee rek Ngoné moom taxawoon nañu taxawaayu papa c'est vrai que ni nekk fi mais. saa ñu gëstoo rek gis ngóone day mel ni moom lañu gis waaw. ku nekk lu métti voilà mi bàjjan yow aussi ñàkkul loo xamante ni moom ngay def comme témoignage nga nekk xaritu Ngóone Njaay géwal yéen ñaar réeroo woo leen ci dara ngay léppam muy sa lépp alors tey seen bés bi seen ngeen maye seen doom mu nekk bés boo xam ne ñëpp moom lañuy ñuy ñaan. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp waa li nga wax moom noonu la. tey dañoo am bégte moo tax wax bi sax dugg ndax tey dañoo kontaan li ñu war a wax sax xamuñu ko waaw ñuy ñaan nag sëyam bi yàlla na ci jur lu loo xamante ne dina kawe njoxtam ndax xale bu baax la nag bu fonk bàjjanam yërëm bàjjanam xale boo xam ne lu sigg sax xool nit kon tey bàjjanam lu mu ko defal rek euh, daf ko mérité mhm. ñu ngi koy ñaanal daal mhm. yàlla dund ba doomam yi mu ñi koy ñaanal ci sëyam bi mu dundul ba jur loo xamante ne dina ko dina ko dina ko dina ko kii daal mm-hmm. mënu ma wax sax damaa kontaan franchement. Ngoné Ndiaye buñ ne Ngoné dafa bëri xadar Ngoné dafa naxari deret yow lan ngay tontu ci moom non du bëri xadar gisoo leen ko sànq ba léegi ku ko xool mu jooy mais nag gaynde la mm. bëri xadaram du ko du dox rek du ko wane mm-hmm. day fekk loo xamante ne da koy corriger mu corriger ko ci saa si borom xol bu rafet la taalibe Serigne Fallou la te buñ ñu nee taalibe Serigne Fallou kooku moom <laughs> macha allah. muy sama mag bu baax ma di ko sant di ko gërëm aw ma fayam de. Mhm. yàlla laa koy booleeg sëñ Fall waaw. Sénégalais nee nañ mhm. xanaa doon lañ ñëw laa fay. la payit ku fa ñëw xam ne ngóone cent pour cent la fay def mm. nañu <laughs> maa la wax lii daw ñu dara ok merci beaucoup Baro dama koy takk ndeysaan <laughs> ma kon ma gàñ la de kon nga ma gàñ la yow ngóone ko bawoo balla takku ko bawul mais ngeen jox ma ko où est le problème. sama waa ji laa bëgg a jàkkaar lool. nee na di jéggi nag di jéggi nag moom moo di góor a tamit daay wax. nee na moom mi ngi toog ak moo de yaay moo toog bu ñu toog bu ñu toog nee na moo de doxul. nee na mu def ba jot bu mat sëkk nee na moom mii mu teg moo ne fi mu war a teg. kon mu wootee kenn du ñëw joxe cër. dama dégg moom benn boo day dawal otoom romb na ci circulation bi doo yoonam yóbbu la ba nga yegg kon yaa nga nga yeggale sa xaw lii dugg ci nag bi xale loo ci ci waaye nañ ko dagg rek te ñaan rek jërë ngeen yëpp léegi nag soo ko toogaan dafa yàgg ba nit ñi ñëpp xale bi moo waral ñuy toog dañ ko may nag bu dugg ndax toogaan dafa yàgg ba moo ubbi ci ñaar Mbacke dee na nga ñett dee na reetaale reetaale